ci bës bi nga xam ne mooy màggalu Daaru Ngéegéy ñu koy amale fii ci Touba Ngoye département bu Bambey kon mu mel nii ñu ngi bëgg a ñu ngi jetaay jëwrin daayira Masaalikul Jinaan di daayira boo xamee ne daayira bu cosaanu boo xamee ne kat fii nga xam ne tey jii liggéey bi yegg si na fi fii ci Touba Ngoye ci Daaru Ngéegéy fii liggéey bu am solo lañ fi def loo xamee ne kat boobaak léegi maanaam ñoom ñoo koy ñoo koy dundal ba mu yegg si fii kon mu mel ni ñu ngi jotaay ak jëwriñ ji Serigne Mor Fall mu ànd kook magum taalibe yi nga xam ne ñëpp ñoo nekk ci daayira bi ci ak doxalin ñu am rek ak yëg-yëg goo xam ne xëy na bëggoon na ñoom ñu jàllale ko ci ci bës bi kon xam naa dañuy jëbbal kàddu gi Serigne Abdou Fall mu leeral lenn ci liggéey bi bu noppee magum taalibe yi fi nekk. jëw Serigne Mor Fall tëj liggéey bi bu ko defee ñu euh, wéyalaat ci yeneen reportage ndax lépp rek ngir xamle barab bi nga xam ne mooy Daaru Ngéegéy te jëwri jàmbaar jooju liggéeyaloon fi loo xamee ne liggéeyal na ko Serigne Touba loo xamee ne adduna yëpp mën nañ cee jëriñu kon bisimilah Serigne Abdou Fall. ñu ngi siyaar ñëpp di jéglu ñëpp di baal ñëpp ak di ñaanal. sëriñ Saliou mi nga xam ne moom la fi yàlla teg tey ñu ñaanal ko suñu boroom yàggal ko fi yàggal ay taxawaayam ñaan itam suñu borom mi nga xam ne moom moom lépp sëriñ Mor Fall mi nga xam ne mooy jawriñu Masaalikul naan suñu boroom yàggal ko fi ah bu ñu jàllee ci loolu nag ñuy ñaanalaat itam. ka nga xam ne suñu borom def ñu ko boole woon ak moom muy sëñ sëriñ du Bale seen jàmbaari yoon wi nga xam ne suñu borom jubale woon na ko ak nun wax de yàlla ñu koy ñaanal suñu borom yokki leeram barke Seexul Xadim daayira bi nag wax de yàlla yàgg na lool ndax boo xoolee quatre-vingt-huit ba léegi dix-huit ba léegi ñu ngi ci kon boo xoolee daay rab bi moom yàgg na ci jamono Serigne Modou Ba ba Serigne laay demee ba léegi booba la rab bi tàmbali wax de yàlla ñu sant ci lool daay rab bi nag metti woon na lool waaye nag suñu borom def na ci tawféex bu baax a baax a baax ndax lépp loo xam ne lii tey eh, muy ay xiiwal muy ak can wax dëgg yàlla suñu borom def na ko fi ba doy na sec macha allah doy na sec eh, Serigne Mor Fall nag wax dëgg Serigne Modou am na lu mu ko waxoon ci suñu kanam ne woon na ko seen daayira bi de luy dem la lii dem nag ku bëgg a dem nga jàpp ca mu yóbbaale la kon loolu Serigne Modou waxoon na ko sëñ Mor Fall suñu kanam. daay rab bi dox nañu ci doxalin woo xam ne wi jeggi na dayo ndax fu ne dem nañu fa ci ndakaaru man mii ngay gis ni fu ne Mor Serigne Mor mi yónni na fa fa amut fu ma yoonu wut ci ndakaaru ay géeju wayak ay kol fu ne daal ci ndakaaru yóbbu na fa ma di fa dem booba rab bi tollu nii waaye tey jii wax dëgg yàlla alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax a baax kon ñu ngi ñaan daal suñu boroom daal yàggal ay taxawaayam ci barke Sew Xadim wax dëgg yàlla sant nañu bu baax a baax barke. kon nag bisimilah tam liggéey bi di ñaanal Cheikh Mountakha yàlla bàyyil ñu ko fi mu bàyyil ñu ko fi aaral ñu ko ba mu yegale ay naalam yëpp bu sumbaat yeneen naal yu mu egale ci boppam. ñu fekkee ko ñun ñëpp ak taalibe yi di ca teg suñu jawrin suñu sëriñ sëriñ Saliou Sène mi nga xam ne moo des ci kër gi di suñu xalifa di suñu bunt suñ subaa ñu ñaanal ko mu wértu yàgg yàlla bàyyi ñu ko fi ba mu rek fi lool lool di ñaanal ay magam yi mu fi wuutu yàlla yokk leen seen leer xaare leen ci àjjana yi gën a kawle barki yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam ah daayira bi moom daanaka nun ñëpp mën na cee wax ndax Baye Mor ba mu sos daayira bi mitti woon na lool jafe woon na itam ndax dañ ñoo fekk béréb boo xam ne béréb bu naqari woon ci xel bu jàpp daayira ndax dañ laa fekk ci biir taax mu di ñu topp kenn ku nekk mu sol dalam dem ci moom fekki ko néegam du tayal du gedd ñii naan dafa bëgg lii ñii naan day xeccu lii loolu yëpp faale wu ko mu ne dal ci li ko sëriñam sa saret di wut bëgg-bëggu sëriñam ak di wut lu ñu xetli ñun taalibe yi ndax ku xamut ki lay xamal di lay xetle ba mu koy jëf comme xamoon na ko bu ko neexoon ñu ngi ci boole waale dañoo ko ci jox rek yëpp bàyyi ko waale nag kii def na kii def na kii nag dégg di ko sant ñu di ko ñaanal yàlla bay nit suñu kanam ay et yi et et et barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag amuñu payam yàlla na ko yàlla payam yala mi nga xam ne moo am pay yàlla ko yàlla nga xam ne mooy sam lu mu sam ci loolu yàlla nañu ko sa sama. barke Xaadimu Rasuul barke si Ahmadou Seen ñu ngi siyaare Cheikh Sani Mouy di ñaara Cheikh Mountakha saa borom yàggal ko te wéral ko moo ay bokkam ñëpp moom de ah, daanaka daayira yi moom. yëfi sëñ bee euh, ndax daayira bi ay rakk sëriñ bi ci boppam ñoo ko sosoon ñu doon seen ndaw lu sëriñ Sian sëriñ Asan ak sëriñ Alaaji Aliou Ndaw mi doonoon jawriñu sëñ bi ca Ndakaaru man nag boobee seenam ndaw dong laawoon moo Modou Boli bi nga xam ne ci la daayira bi sosoo dimbali nu képp taxoon mu euh, wax nañu sos daayira bi 79 loolu booba ñu ngi daje Pikine kër Serigne Sène da ci ak ne daal léegi sëñ Alaaji Ndaw comme mooy jawri ministre màgg na nañ la fay fekk ñu fekk sëñ Alaaji maanaam sëriñ bi moom jëfal ko daa yomb ndax moo mooy yor yëfam wax dëgg yàlla ni ko sëñ Assane mi waxee ak Abdou Fall noonu rek la demee ma doon seenam ndaw lu ndaw ñu di ma ma wax yoon si waaye moom mosuma cee doon bi lenn dañ naa sëñ bi nag léppam kanam la jëm loolu moom la ñu leer la ndax bés bii maanaam dañ koy sos at yu bëri boo séedee daanaka wen nag lañu fi doon lewetal def naa tey ay gëléem ki nag yu bëri def nañ ko mbooloo mi yokku na da nga xam ne lépp sëñ Tuubaa la bés bi nag bésu cant la sëñ Jibril ndax sëñ Ahmadou Seen mi nga xam ne moo ñu dimbale jóge woon ci 1914 ba 13 1913 fekk Seexul Xadim ci Njaaréem moo ñu dimbale ba mu demee la doonoon pës-pësam la mu nekk woon mu bàyyi ko islaam rek ñor ko Seexu Xadim defar ko jox ko la gën loolee kon nag ñun ñun ñu waa Masaalik ñu ngi sant sëñ Tuubaa di sant sëñ Modou Bali Siyaan di sant sëñ Siyaan mi toppan si moom du ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool ñu ngi siyaare ñëpp li mu defee noon bi ñu demee ba sett yi nga xam ne ñoom ay setti sëñ am laay lañu ci jamono sëñ Ceer ñoom itam ñu sakku sëriñ bi mu jox leen ñu ñu samp ab daayira dañ ko waxee sëñ mu ni leen de lu ngeen di def ne daay daayira Masalik daal lu ngeen bëgg a def dem leen si ñoom loolu itam booba léegi ñu ngi koy ñoom noonu la ñuy doxale ñu ngi leen di ñaanal ñoom itam ak yokk sant naa ñëpp nag waa daayira bi sant naa leen ndax man damaa matul te ñoom ñu mat maa ñaan saa mu yàggal leen fi lool barke sëñ bi sant naa ñëpp maa ngi jégalu ñëpp nag kaddu yi dina ngi ñëpp sëriñ Jimmi